kon tey ñu ngi am mbégte di dalal xalif général des Khadres El Hadji Mame Bou Mouhamed Kounta sëñ bi ñu ngi lay nuyu.
fay nañu leen.
sëñ bi est-ce que mun nga ñoo wax tuut ci sa dund gannaaw yow dangaa nekk mag bu fi presque mun nañoo wax ne ci xalif général yépp yow yaa fi mag. mun nga ñu wax tuuti ci sa jaar-jaar. ci sa dundin.
suma jaar-jaar fa tabaarakallaahu bi ma demee jàngi ba ñëw dama nekk ci sama wetu baay sama baay it nekk mag nekk kilifa bu mag yoo xam ne amoon na xam-xam xam na àdduna teewa ni lu bari magam moo fi nekkoon Cheikh Bekkay magam 1929 ci la nelaw mu nekkee mu nekk fi ak beneen magam bu ñu wax Cheikh Lémin Cheikh Lémin nekk na fi 44 ans ci xilaafa bi def na fi yit lu lu bare bare bari sama bàyyi nag li kuy tee dem ginnaaw dafa amoon ay daara di jàngale alxuraan di liggéey it di bay bay miin mbooloo ñoo ko daan def ñoo xal yi taalibe yi mbay mi ci la daan dund da koy génnaa sa kër ci la daan dimbali nit ñi di ci faj seen aaju ndax da mbay mi dafa daan bari tendance bu bari la man bi ma jógee ci daara yi maa ñëw toog ci wetam di koy jàppale ci yu bari dafa dem naa fi gànnaar ba ñibbi si toog ci wetam def def daara yi ci kër gi di ci jàngale di yar xale yi ci suñu ci diine lislaam di leen yari ci jikko yu rafet yoo xam ne yii bu ñu bu ñu ko amee dañu mën a dund dund bu rafet ndax nit jikko moo koy yiide ba mu jaar si yoon yu jub ku foom kon liggéey la moom sama xam ma itam ci loolu laa yaru moom laa xam di ma commencé dem di def ay voyage Mali damay dem ñu dugg ci biir àll bi ñi nga xam ne ñuy dugg ñu ci diine lislaam ma di leen nax ma ma may waxante ak ñoom di leen digal lislaam njariñam importance bi mu am ñoom itam ñu dugg ci lislaam fekk ni sunu sunu maam nit ñi daan jóge fii di ko fekk di ko fekk fii di di dugg ci lislaam lu tuub bàyyi kéefar loolu moom ci lañu nekk lu bare bari ak lu yaatu moom fii de kon ginnaaw bi dafa déménagé dem Saalum ndax suuf sa moo gën a yaatu fii sañ ci fa dëkk boobu tudde ko Njaasam Saalum di fa jàngale di fa liggéey di fa jaamu yàlla am na fa 30 ans door a jóge Saalum ñëwaat fii doon am xalifa bi mu doonee xalifa bi yàggu fi lool ndax daf fekk mu nekk mag ñaari at ak juróom benn weer la fi am def lotissement dëkk bi gas fi ay teen sunu maam it dafa dafa fonkoon liggéey dafa doon gor ak ci àll bi ay ay ay ay ay tool yu bari yu yu mag tool yooyu ba tey ñu fi ci loolu lañ nekkoon ba xale yi judd ba yaaw fi suñ ko suñ kanam jaral leen ci yoon woowu boobu gouvernement français ñoo fi nekk gouvernement français bi ñu fi nekkee nekkoon na ñun ñun ci ñun ci ci jàmm bi yaatu ndax ñoom lislaam moo leen moo leen ñoroon luñ daan def rek dañ ci dañ koy def ci lislaam ci te lislaam day diina bu bu bu maandu bu bu diina diina bu civilisé yoo xam ni kuñ ci yar rek nga mën a nekk nit yaay nga am xel di nga xam sa njëriñ di nga xam sa wàññeent di nga di nga di nga di nga teey di ci loolu ci la ñu nekkoon ci ci la ci la ñu nekkoon ba sama papa jóge ñu mu fi bàyyi yëpp dafa yokk gannaaw dama ko yokk mais dara wàññi ko ci taalib yi ñu ngi ci yar jàngal leen tarbiya leen bu bu ñu demee ay at ñu yebal leen ñaanal leen ñu dal telu ci seen i bopp mën a mën a jëriñ foofu mën a jëriñ seen bopp loolu ci ci la ñu nekk fa ba tey jii ba mu fi ma nekk xalifa bi kon naa fi am léegi fukki at ma ñëwee it dëkk bi dañ koo gën a yaatal ma sàkku ñu am ay ay école yoo xam ne xale yi mën nañu cee jàng ak ay daara xale yi di ci jàng ba école bi di màgg léegi ba tubaarkal am na classe yu bari am na CM ndax li ñu li ñu gën a yitteel mooy xam-xam ak liggéey ba ba mooy ci tooñ lu gouvernement digle nga nekk ci lu mu teree nga bàyyi ko loolu ci la ñu nekk ba indépendance bi am ba réew mi dox ba ñu am ay Senghor moo moo indi indépendance bi ci jàmm ak salaam ci loolu lañu nekk ba am ay gouvernement gouvernement yi changé Mamadou Dia moo fi nekkoon ginnaaw bi ak Senghor bi bi seen nguur mate ñu am ay remplage remplage yi fu na sonalu ñu réew mi ci dara dañu ñoo bàyyi rek ci suñu jaamu yàlla ak liggéey warugar yi nga xam ni dox na suñu diggante ak gouvernement gouvernement Sénégal ñu di ko dox di ko wax bu fekkee bëgg nañu it ñu dimbali ñu ci suñuy liggéey danañu leen ko sant ñu bind wax leen ko waaw bu fekkee dafay gouvernement bi du mu ci man dana na ko defal du mu ci deful nga xam ne bëgg na ko même seen doole àggu ci wala mënuñu ko loolu ci la ñu nekk ba léegi loolu moo fi dox
léegi balaa indépendance ban jaar-jaar nga waroon a def pour tukki
booba damaa ñibbisi jóge ci daara yi booba booba masoon naa may tukki na ci ci biir biir biir biir saal bi ndax dafa amoon luñ lay laaj noo war a def bu tukki pour génn dem Mali wala yeneen yan kayit nga war a wut wala foo noo war a def bu tukki autorisation la ñu xam ne génn nga fi yaa ngi Mali
fooy utee autorisation bi ci gouvernement bi gouvernement Sénégal non booba indépendance amagul laa waaw mais boobu tubaab yaa ngi fi am am ay com- ay commandement boobu commandant cette division mooy nekk ci ci département bi maanaam commandant cercle mooy nekk Thiès yëpp naa gouverneur mooy nekk Ndar gouverneur général mooy nekk Dakar mooy nekk faw ñu dem ci seen ndigal ndax boobu kilifa bu fi jógee fi doomu kunta dem bëtt bëtt cercle te amuloo ci station ñu la gisee dañ lay jàpp delloo si la
donc foog nga def foofu ñu defal la autorisation ñu defal la autorisation wane ni yaa ngi génn
ndax autorisation bi day am waxtu maanaam yow ñetti fan ngay def foofu wala ñeenti fan doog a ñëw wala dañ lay danañu la laaj ñaata sa tukki bi ñaata ñaata bi am nga bëgg am wala ñaata fan ñu jox leen ko ñu def ko ci
bu jeexee te ñëwoon nag léegi bu jeexee ci ñëw nga dem renouveler ko commandant bu fa nekk nga dem ci moom ni ko man kat damaa amoon autorisation pour tukki si fii sama tukki jeexal damaa bëgg nga nga yokkal ma ko waaw damay def prolongation moom mu bind ñu mayaat nañ la nangam
léegi yow def nga Kankan dem nga Kankan ak Guinée def naa Guinée yëpp waaw bi nga dem naa nekkee Conakry waaw
kankan Cheikh Fanta Madi benn sëriñ bu mag moo ko nekkoon fa nga jóge Mali ñëw dugg biir gan biir Guinée boo duggee biir Guinée ñëw ba kankan kankan saxaar spéler benn spérissement moo fa daan jóge saxaar gi dem ba Conakry six cent kilomètres nga dem fa ay kindiye ay maamu ay course ay par dëkk la ay cinquante kilomètres yi nag gaa maam gaar nga dem fa foofu am naa fa ñeenti weer ci biir nawet bi génn mu dem fenn
ban souvenir nga fa am bu la bu la marqué ak souvenir dem taali taalibe yi ma fa fekk dafa dafa yokku defal nañ ma ay teraanga jox nañ ma ay ay tissu wax nañu ma xaalis laaj nañu ma it ay laaj ci seen diine moom ma wax leen ko
léegi bi nga jógee foofu dem nga Côte d'Ivoire
Côte lu d'Ivoire waraloon voyage Côte d'Ivoire bi Côte d'Ivoire si buntu bi rek laa yem mu nga ci biir Côte d'Ivoire Abidjan àggu àgguma fa damaa jéggi frontière bi tuuti rek daal di wàññeeku kon yëgoo biir Côte d'Ivoire Hmm, jéggi àgguma biir Côte d'Ivoire
yow sa tukki yooyu yëpp loo ci jëlee comme xam-xam boo xamante ne jëriñ na la daal
ak tukki yi
waaw yi nga def ay Mali Guinée ci biir sous région bi yëpp ci boo dem da nga fay yokkoo da nga fay am xam-xam di nga gis loo loo mus a gis di nga dégg loo loo loo mus a dégg di nga fa am it ay njariñ di nga fa jëlee ni ni ñoo xam ñoo xam ñu am valeur la ñu doon nga nga jëflante ak ñoom yenn saa yi ñu ñëw ñaan loola yàlla ci seen soxla nga ñaanal leen yàlla soxla soosu yàlla faj ko ñu gën laa fonk gën laa jàpp
ci waxtu tukki yooyu kañ nga ciy jël soxna Hmm?
ci période yooyu nga doon dem tukki déedéet boobu jël jëlewuma soxna bi ma ñibbi seen ak laa jël soxna
booba yaa ngi am ñaata at à peu près vingt six ans vingt cinq ans ah vingt cinq ans ah ok ci laa jël soxna kon voyage yi nga def yëpp boobu amoo ci soxna amoo ci doom bu jëlewuma soxna bi nga yoree soxna ba léegi tukkeetoo léegi tukkeetuma ok Eh, est-ce que mun nga ñoo wax ci tuuti ci sa temps wu xilaafa yi papa ci temps wu xilaafa sa papa bu mu toogee mun nga ci wax tuuti waaw sa sama papa eh, sama papa xilaafam dafa nekkoon mag mu am fii ay jafe-jafe tuuti suñu biir man maa nekkoon aide aide de camp maa ko daan maa maa daan défendre lu bari nit laa ko xam ni ko am ko am fit laa daawuma tooñ nag sama papa yi daf maa jaral loon ñu nekk daanaa ko xam ni sama sama papa bakkanam moom moo ma gënal sama bakkan bi nekk na fii ba xilaafaam mat kenn tooñ ko benn bu wiit amul
kon sa rôle daal moo ne woon défendre ko Hmm?
sa ta sa taxawaay daal moo nekkoon défendre ko défendre ko rek
mais amatoon beneen liggéey boon buñ la joxoon nga koy def yeneen xanaa service yi dëkk bi waaw service yi jëm bu dee bu fekkee su xew xew la ma ñëw ci réception bi ñu jël kàddu wax ci turam
léegi yow ci village bi nga bi nga juddoo par exemple Ndiassane bi nga juddoo voilà fële Fii laa juddoo.
waaw fii nga juddoo léegi euh, dundu village bi lan la la apporté par exemple ci sa ci sa xalif daal dund dund bi waaw dundu village maanaam nekk koo xamante ne ci village bi la juddoo màggee fi lan la mun a def ci sa du kii dund bu daal.
rafet lañu dund fii ndax waxtu wu nekk ñoo ngi ñoo ngi ci jàmm yàlla ñoo ngi ci fexee liggéey dégg nga. ñoo ngi ci fexee dëkk bi yokku taalibe yi yokku yooyu pexe moom mosuñ yee mosuñ cee daw dara
est-ce que ñeneen ñi tamit euh, li tax ñoom ñi ñoom ñu nekk ci biir dëkk bi nii juddoo fi tax na ñu mën a gën a comprendre taalibe yi ñëw ak yooyu.
waaw waaw comprendre ndax ñoo fi juddoondoo ñoo fi yaroondoo gis nañu taalib yi di ñëw gis nañu taalib yi seen seen importance taalib bi nag nawle la dañ koy si dañ leen di siiwal ba bëgg ñu lu leen naqari ba lu leen yàq ñu leen sonal ci loolu lañ dund ak ñoom dundin mu rafet
est-ce que mun nga ñoo wax ci li nga def ci mbay tuuti hmm?
mbay li nga ci def tuuti.
mbay kay mbay mbay ki ba ba léegi maa ngi bay maa ngi baylu
mbay mi daal fan la la yóbbu yow fan la la yóbbu.
ah jeex na mbay mi daf maa yokk dama daan bay am tonnage yu bari danañu bay gerte danañu bay dugub danañu bay ceeb danañu bay xeeti mbay yëpp ku ko génnee asaka zakat bi dañu ko fukk yu nañ génne ci benn joxe ko dañu def ba mu bari ñu jox ko nit ñi nga xam ne amuñu doole
léegi question bi ma lay laajaat mooy noo mun a méngale yow sa dund bi nga nekkee xale ak say ñoom seen génération ñoom comme ñoom Baye Sidi mi.
ah bokkuñu nag bokkuñu ak génération ah
ñii ñu suñu suñu suñu génération dafa jànkoonte ak ay jafe-jafe yu tuuti ñoom nag tubaarkalla seen génération dañoo tasante ak réew mi civilisé am njàngoom français dégg nga sonn nañ ci benn benn benn coono foofu la leen di différence bangoo
léegi est-ce que am na différence responsabilité xalif bi nga doon nii ak yi nga xamante ni weesu na responsabilité yi wàññeeku na wala.
ah responsable fi laa fa moom dafa metti dafa bari loo loo- loo xam ne lii yaa yaa ko yaa ko responsable lu ca baax ñu ni yow la lu ca sikk ñu ni yow la te loolu da ngay da ngay moytu dara yàqu ci
kon daal depuis ñi fa nekkoon ak fi nga nekk ba léegi amul changement sa responsabilité.
waaw amatu ci yokk wala amatu.
responsabilité changement bi mooy say soxla day yokku ndax nit ñi yaa ngi yaa nekk seen kanam da nga war da nga leen a war dimbale ci boo leen ëppalee boo amee wërsëg da nga bo- da nga leen a war a muñal ndax léegi dañu am ay tooñ yoo xam ne boo muñul doo doo doo doo doo doo doo du mën a ba- da- da- du baax
léegi yow yan mooy say souhait pour Ndiassane. wala say doom li nga bëgg daal pour say doom. waaw mébét yi sama pour mbir- Ndiassane waaw, pour say léegi doom ak yi.
xale yi dama bëgg ñu ñu- ñu am- ñu jàng ak ñi leen féete suuf am xam-xam am it responsabilité seet yi loo xam ne bii danañ ci mën a liggéey ci du liggéey boo xam ne bii bu yàq dara la ñu di ca liggéey moo xam commerce la moo xam mbay la moo xam yeneen façon la yoo xam ne yi dañ ci mën am xaalis te doo yàqal kenn dara te du la yàqal dara yooyu toujours ñu ngi ba léegi li naan li fi mag ñi bàyyi dara bañ ci yàqu lépp yàqu ma ne li li nga naan li fi mag ñi bàyyi dara bañ ci yàqu rek lépp Hmm?
ma ne li ngay faral di wax nan ñu ñaanal li fi mag ñi bàyyi dara bañ ci yàqu waaw waaw maanaam li fi ma ñuy bàyyi muy dono toujours damay wax ni nañ ma ñaanal dara bañ cee yàqu lépp yokku
yooyu njaboot bi ñu juboo wala bu ñu mënta juboo complètement ñu masla maslaha xam ne boo ñëwee fii doo xam ni njaboot bi juboo juboo ñu tey njaboot bi si différence yooyu yu tuuti lay doon jikkoy doomu aadama moom mel noonu ndax boo ko jiitoo ngeen nekk ay bokk nekk ay nawle dañuy am dañuy am kiñaan bu nekk ci ñoom waaw il faut mu am fu mu lu mu signifié mais yooyu yëpp da nga koy maslaa
léegi su ma laajoon lan moo la gën a neex ci sa dund loo may wax.
Hmm?
lu la gën a neex ci sa dund yëpp loo may wax.
sama sama dund li ma ci gën a neex mooy nekk sama biir njaboot bi ci jàmm ak salaam yàlla it may ma loo xam ne lu ñu bëgg rek ma man koo def ci xeeti teraanga bëgg ñu am kër yu baax am oto yor seen nawle yorin bu rafet dama leen di jë- jabari dama leen kii yaayam Sëriñ Tuubaa mooy maamam moo jur moo jur Cheikh Mahamadou Moustapha Cheikh Mahamadou Moustapha jur yaayi kii mu soxna Ami Mbàkke waaw loolu dama koy dem yi bu- bu wut ko feneen ba am ñaari soxna wala ñett wala ñeent
léegi looy jeexale Hmm?
looy jeexale ma ne
ah li may jeexale xanaa sant yàlla julli suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax man di maam samay morom amuñu ko maa ngi ci jàmm 1925 mooy sama mooy sama datu date de naissance jaaruma ci benn coono daan coono yu ndaw ndawaa rek léegi nag sama lépp dafa ñëw ma fa- famille bi juboo na ñoom man fii ñaari dëkk la am na ndàng ci ginnaaw ci ginnaaw ngaay huit kilomètres ndàng ak foofu war naa mat dix dix huit kilomètres à vingt vingt vingt vingt vingt huit kilomètres foofu la suñu maam jëkk jëkk dëkk Cheikh Bonam huit kilomètres bi mu fa dëkkee fa la am njaboot gis jaatam doomam bu mu moo ñëw sanc fii moom moom kenn ba yàlla jox ko fi li mu ko jox waaw danañu sëyeen sëyante ci suñu biir ni sa doomi baay nga yor ko wala sa doomi bàjjan waaw
maanaam seen i dañ ko yor war a yor bu rafet yi nga leen di yor doo leen dóor doo leen doo leen saaga doo leen xas doo leen sonal it seen ñaari baay bokkee ñu ne yonent
loolu it sama sama njaboot tam ku ma ci ku ma ku ma ciy wutale jabar dama ko ne boo ko dóoree ma dindi sëy ku ko saaga ma dindi sëy yoral boo mënta yor ni ñu al- ni ñu ni ñu ko alquran digale fa imsaakun bil maaruf aw tasrihum bi ihsaan ne leen yor yoreen bu rafet wala ñu bàyyi leen bàyyi bu mu rafet suy dagan na parce que dagan na boo ko mënta yor nga delloo koy bokkam mais jekk jàpp jigéen ñi di ko lëjal di ko sonal di ko di ko xas loolu yooyu lislaam sant am newu ko yow mii kilifa njaboot gi lislaam sant la loolu loo ci mën défendre danga koy défendre ci loolu dañuy nekk ci dañuy dund dañuy tedd waaw lu ci nit di def si njaboot lu muy def day tàbb bu njëkk dañ daan fa suñu suñu suñu doom yi yóbbu leen gànnaar ñu am fa juróom-ñaari at juróom-ñetti at ba ci fukki at bu ñu ñëwee sax dootuñu dégg wolof langu naar rek la ñuy dégg mais léegi loolu am na changement ndax naar yi toogatuñu jàngaleetuñu léegi sa njaboot ci wet lay nekk nga seet foo ko dugal daara yoo ko dugal wala école boo ko dugal wala leneen ci noonu ngay ci noonu ngay defee moom baax na